kenn suba si comme ni nga ko waxee ana ca muy Cheikh Sadibou Ndiaye euh, nekk ci buumu jokko bi ñu lay euh, nuyu euh, di la dalal. maa ngay spécialiste en géopolitique ñu dooree waxtaan wi ak euh, mini sommet goog nga xam ne am na démb ca Élysée euh, loo jàpp ne mooy ëllëg tey xeex euh, xeex terrorisme bi ci Sahel jamono ji nga xam ne gis nañu menace jihadiste bi nga xam ne day gën a jël terrain ak ñagas-ñagas gi am diggante mbamako ak pouvoir ak plutôt Paris. exactement waaw mini sommet boobu am Élysée xaw ma mini sommet la wala grand sommet ak nu ñu ko mën a tuddee daal l' essentiel mooy sommet la boo xam ne président français Emmanuel Macron moo convoqué pratiquement pays yi nga xam ne ñoo ko regroupé ci G5 Sahel bi Mhm. ñu doon waxtaanee li si gën a am solo mooy retrait France ou retrait G5 Sahel retrait Barkhane sax plutôt au niveau du Mali mais bi ba tey pas encore effectif maanaam te bu doon retrait bu ñu génn biir euh, Mali ñoo nga jëm fële di Niger fële nara xam naa def seen base bu mag boo xam ne moo leen di permettre ñu mën a xeex ak euh, groupe terroriste terroriste yooyu nekk si Sahel bi mais liñ ci war a jàngatee mooy. Euh, problème bi nar am mooy dañ nar a bàyyi jihadistes ñu vraiment am yoon gën a am seen doole au niveau du Sahel parce que Mali li mu bëggoon rek lu simple la mooy maanaam yokk ay partenaire am France dafa ñëw mu bëggoon Russie ñëw mu bëggoon Chine ñëw ak yeneen dëkk ñu gën ko jàppale pour mu repousser jihadistes la jihadistes yi mais ñu dem ba gis ni problème dafa am diggante Paris ak euh, Bamako parce que Paris de reproché Bamako ni ko yow ay mercenaires ngay indi ñoo xam ne amuñu vraiment àq ak yelleef xam ne war nañu mën a intervenir si dëkk alors que Bamako day rétorque toujours ni moom ay officier russe ñoo fa ñëw wàcc pour jàppale ko si formation militaire yi mais tamit pour jàppale ko si ñu xeex contre jihadiste donc mu ñu gis ni dëkk yooyu sax dañoo waroon booloo ndax benn ennemi en commun la ñu am mooy jihadiste mais ñu dem ba si biir daal gis ni France moom ak ministre affaires étrangères Jean-Yves Le Drian dañuy tenir ay propos yu dëgër yoo xam ne ci jëm si kaw Mali la par rapport à la junte parce que nee na junte bi euh, démocratie tegu leen fa doy élection moo leen fa teg donc amuñ lu ñuy wax ak ñoom ñu gis ni daal échange yu métti dafa amoon seen diggante sommet yu bëri euh, gars yi woote nañ ko nag ba ci mini sommet bi boo xam ne da defaraat politique française bi war am au niveau du Sahel donc mun nañ ni daal fii ay diir xëy na barkan euh, on peut assister à sa fin au niveau du Mali wala daal ñu xool beneen option bu France di trouver pour redéployer Barkhane dëkk yu mel ni Niger wala yeneen dëkk. kon yow njott nga ne conférence de presse bi dinañ ko dëggal. waaw conférence de presse bi man njott naa ni même buñ ko dëggalul dinañu wàññi daal dinañu wàññi seen présence bu baax au niveau du Mali parce que ñoom dañu tàmb di wax sax naan léegi dafa am benn sentiment anti français bu am au niveau du des pays africains te loolu dafa di loo xam ne mën nañ ko éviter ndax sentiment anti français amu fi nit ñi léegi dañoo bëgg jël seen ay responsabilités. bëgg di diversifier seen partenariat parce que noonu la France daan diversifier partenariat am donc pourquoi pas dëkk bu mel ni Mali donc loolu la nag France bëgg bañal nit ñi moo tax tey conférence de presse bi xëy na annonce yi nag yi ci dara am du bett nit ñi daal. tey euh, wax nga ko nee nga euh, dina ñu jóge euh, ca Mali donte dinañ des ci Afrique xam ne Mali foofu la mbiru jihadisme wulee ñaay ban conséquence ban njeexital am ci Afrique. waaw njeexital bi mu nar am ci Afrique nag euh, ci surtout au niveau du Sahel xëy na si wàllum sécurité dina pousser suñu état yi ñu gën a préparer wu seen euh, kaaraange dëkk parce que démb boo dégloo Alassane Ouattara sax benn mm. conférence de presse moo ngi naan le xew ni Sahel bi dina leen pousser ñoom ñu gën a dooleel seen ay militaire gën a dooleel seen ay gendarmerie gën leen professionnaliser pour ñu mën a jànkonteel difficulté sécuritaire yi nar am ndax xam nañ ni menace bi c'est réel menace bi dafa di loo xam ne lu am la au niveau du Sahel ndax ba Libye daanoo ba tey dañoo gis ni armée ya amoon ya Kadhafi amoon yëpp ay groupuscule ñoo ko te di songu ay dëkk di song ay route di songu ay corridor bëgg diviser ay état mais nag loolu nag da leen nar a poussé ñoom état africain ñu gën a renforcer seen sécurité te boo seetloo sax Assimi Goïta si logique boobu la nekkoon moom parce que dafa ni il est que ñu renforcer sécurité au Mali en formant les en diversifiant son partenariat te loolu dafa di loo xam ne lu am solo la lu baax la parce que dëkk li koy téye lenn la sécurité doole boo xam ne di nga mën a jàmm ak loolu bépp bépp agresseur bu pour daaneel sa dëkk te Mali si yoon boobu la nekkoon mais France moom dafa ni déedéet moom mooy tànnal Mali ay partenaires moom mooy orienté politique sécuritaire bi am ci Sahel bi te loolu autorité malienne yi dañoo taxaw ni loolu day dakk mhm. moo tax ñu nar a ak moo looloo nar indi nag problème bi bakkan nar a quitté Mali leen Niger wala daal ñu wàññi seen ci ndaje googu am euh, ca Élysée gis nañ ne Mali teewewu fa amul kenn ku ko fa teewal Burkina Faso tamit euh, li ni mel ndax njotoo dañoo euh, bëgg a tëggaat ñi nga xam ne ñoo bokk ci G7 g cinq Sahel ndax gis nañ fa Sénégal waaw dinañ ko tëggaat moom Sénégal sax moom xëy bi la bokk peut-être ay aspect géographique yooyu moo tax ñu xam ñu beddi tuuti ndax li ñu jógee océan Atlantique bi mais une partie du nord du Sénégal fait partie du Sahel. Hmm. mais on est obligé ñu tëggaat euh, g cinq Sahel mais problème bi mooy Mali ak Burkina ñoo nekk ci diggu doomu Sahel. Hmm. Mali ak Burkina ñooy ñooy pratiquement le Sahel. genn wàllu seen dëkk yëpp ci Sahel bi la nekk te dëkk yooyu yaakaar naa ni mënoo di woote ci ay waxtaan ci ay daje pour defaraat Sahel bi te ñaari dëkk yooyu teewuñu mm-hmm. ak nu mu mënti demee ay diplomate malien war nañ leen mën a ak ay représentant potentiel Burkina Faso parce que réalité bi am ci Sahel bi ñaari dëkk yooyu la gën a affecté gis nañ présence bu euh, Mahmoud euh, Ibn Ibno bu maanaam doomu Idriss Déby bi nga xam ne moom gis nañ moo ko fal mm-hmm. mais dañ ko fa teg te bañ ko fa tegee France dafa jóg soutenir donc France mën nañ ni moom ay la nekk di défendre parce que mm-hmm. mënoon nañ Euh, doomu Idriss bi boobu yow du ay élection démocratique moo la teg mm-hmm. donc demal élection boo gañee baax na boo gañeewul nag ñu jël démocratiquement ki gañe ñu teg ko fa mais déedéet ñu gis ni France daf ko jàppale parce que tout simplement kooku dina leen xëy na nekk un bon élève pour mm-hmm. donc loolu pour wane ni rek Sahel bi mënuñu si débattre di si discuter sans la présence malienne et burkinabèse dafa di loo xam ne c'est crucial et lu am solo la mais nag lii dina wane ni tëgg bu bees dina amaat ci Sahel bi mm-hmm. euh, ñu mm-hmm. ñu jéggi foofu gën ko yaatal wax ci beneen somme bi nga xam ne tey ji lay door ca Bruxelles euh, mu doon euh, diggante Union européenne ak Union africaine euh, tey ca ba Macron ak Macky Sall ñu fa yéene waxtaanee seen lëkkaloo maanaam ñaari continent yi Afrique ak Europe tey loo jàpp ne moo war a ruusee ci ndaje googu nga xam ne tey ak suba dina am waaw ndaje googu moom wax dëgg yàlla lu fa génn waru ñoo bett ñun africains yi parce que yàgg nañuy daje mais gisuñu benn changement bu mën a am diggante Europe ak Afrique dëgg la yàgg nañu am ay rapport yoo xam ne depuis ça remonte à des millénaires mais Union européenne ay intérêt lay défendre Union africaine dafa war a défendre ay intérêt te boo seetloo tam Union africaine Union européenne da ay financé te olof dafa ne ku ay bët moo lay wan fi ngay xool donc loolu dañ cee war a jóge dañoo war a jóge si boo xam ne union européenne mooy nekk suñu vraiment partenaire financier boo xam ne moo ñuy jàppale ci wàllum euh, financer union africaine donc mhm. président Macky Sall ki ñu koy xaaree mooy surtout wàllum cotisation boobu union pays africains yi war a def pour dooleel union africaine donc union africaine war na autonome ba bépp somme bu mu mënti dem kenn du ko mën a di dig ay fu muy xool wala di ko sant lu muy def léegi nag foofu la ñuy xaaree union africaine te gis nañ ni problème ya ay problème ma nga am Europe diggante Europe ak Russie autant gis nañ ni ma ngay avancé ba jëm Ukraine Russie taxaw ni autant bu te tànkam fii génne naa samay militaire pare nañ pour xeex autant tamit moo ngi renforcé wu pour wane ni rek Europe ay intérêt lay défendre un peu partout dans le monde de même chose que les Russes de même chose que les Asiatiques donc il est temps Afrique à travers notre Union africaine ñu jëlaat en en main suñuy problème économique suñuy problème de développement parce que gis nañ ni population bi déjà moo ngi yokk population africaine bi te alors que niveau de vie bi toppul gis ni pauvreté bi moo ñu gën a yokk famine bi moo gën a menacer le continent africain ak d'autres aspects j'en ñoo ngi biir Afrique donc problème de développement yooyu la ñu war que Union européenne yàgg nañ dajeeg moom mu ñuy promettre ay milliards li Ablaye Wade waaye milliards yooyu gisuñu ci benn donc n'est-il pas temps que ñun pays africains yi ñu xoolaat beneen modèle bu ñu mën a teg beneen système boo xam ne dañu permettre ñu mën a adapté wu par rapport à un développement endogène développement boo xam ne suñu biir la jógee ñun ñoo koy tegal suñu bopp imposer ko au niveau mondial parce que sommet bi ñu di dem ak union européenne dëgg la dinañ fa waxtaanee lu bëri dinañ fa waxtaanee démocratie waxtaanee fa développement mais du changer dara ci réalité am Afrique actuellement. agenda naam waaye tey ndax euh, xel warul tey euh, ñu amal sommet bi euh, ca ba ñu fale Macky Sall ci bopp Union africaine ndax njottoon tey Europe dafa jàpp ne Macky Sall dina ko tegaat ci raay yim nekkoon waaw loolu am na ay spécialiste français sax yi wax loolu ñu ne mak Sall mooy vraiment ki nga xam ne moo baax pour France wala ak Europe au niveau de l' Afrique loolu am na ñu ko ñu ñu ko mais tamit ñun africains yi lenn la ñuy xaar président Macky Sall mooy mu defal ay intérêt wu Afrique parce que fii les états n'ont pas d'amis les états n'ont que des intérêts intérêt wu lenn la ñëw jël suñu hydrocarbures ñëw jël suñu richesse yóbbu jël ko à moindre coût intérêt Europe loolu la intérêt Europe tamit ça tourne dans d'autres aspects mais ñun suñu intérêt tamit mooy défendre suñu souveraineté défendre suñu économie défendre suñu suñu vraiment monnaie surtout aspect yooyu parce que ñun suñu monnaie ñu koy defaral étranger France moo koy defar donc il est temps Afrique tamit jël ay responsabilités par rapport à ces aspects déggoon nañ fi ñu naan ECO ECO fan la toll yooyu yëpp ñoo ngi siy xaar président Macky Sall au niveau de l'Union africaine ñu génne ñu ci clarifier ñu ci ban aspect ban yoon leen jël pour mën a demal suñu bopp ñun africains yi au lieu ñu lëngu toujours ci Europe mais président Macky Sall malgré loolu que nit ñi di xaar ci moom naan moom moo nar a nekk représentant Europe Afrique ah ñun africains tamit ñu koy xaar de ferme xool ban politique lay adopté par rapport à l'Union africaine pour mën a euh, euh, trouver un bon partenariat avec pays européens Mhm. dellu si monsieur Ndiaye pour jeexal euh, waxtaan wi euh, fii ci Afrique euh, ca Guinée Bissau rawatina gannaaw nag ay semaine ba ba mu fa amee coup d'état ba tey mbir mi leerul ndax loolu tamit teyul xel. waaw mbir mi leerul mais coup d'état yi am Guinée dafa di loo xam ne dafa yàgg daal di am. que dëkk boobu dañ gisoon ni instabilité dafa yàgg am mais li ko gënoon waral mooy trafic de drogue bi fa amoon ak narcotrafiquants yi ak yenn autorité yi nekkoon au sommet yi nga xam ne ñoo daan collaborer ak trafiquant international de drogue bi mag yu daan jaar Guinée di dugal drogue bi Afrique fi mu fiy dugg jëm Europe donc Omar Sissoko Mbaalo nag mu ñëwee falu dafa ni ah d'après ay waxam dafa ni lool day dakk bi mu nee loolu nag day dakk mu commencé teg ay barrage moom ak président Macky Sall ak yeneen yu nekk fii au niveau de l'Afrique yoo xam ne da leen doon permettre ñu stopper pratiquement trafic de drogue boobu ba ci trafic de bois bi am Casamance euh, euh, di jaar bi yooyu yëpp dafa di woon liggéey boo xam ne ñaari prise ñaari dëkk yi doon nañ ci def liggéey am solo mais ñu dem nag ba ci biir gis na xëy na narcotrafiquants yi dañ commencé waat di soudoyer yenn autorité guinéenne pour ñu jéem a daaneel régime bi nekk foofu. Mm-hmm. Oumar Cissokho Embaló nag loolu. buñ ko yëgee nag ci la commencé préparé wu euh, défendre côté aspect sécuritaire ba moo tax ku d'état bi mujj am mu si donc loolu dafa ni lu am solo que ñun entre état ñu mën a former entre mën a booloo xeex narcotrafiquants yooyu xeex coupe de bois yi nga xam ne moo am suñu dëkk parce que loolu day daaneel suñu économie day yàq suñu espace vert yi te dafa nar a déstabiliser problème sécurité yi am Afrique moo tax ma naan toujours euh, Afrique dëkk boo gis dafa lëngaloo ak moroomu dëkk dafa war a lëngaloo ak moroomu dëkkam parce que lu laal kenn dina laal ñeneen ñëpp te si ku nekk da gis problème bi ni mu yeewoo sa dëkk ñi rébellion la yeewoo si ñoom ñëlee Euh, déstabilisation de l' état ñee coup d' état ainsi de suite boo moo tax boo gisee suñu dëkk yi yëpp nekk Afrique actuellement en Afrique de l'Ouest dañuy yëngu gis nañ Sénégal fan yi li fi jotoon xew ñu nag Salif Sadio gis nañ Guinée gis nañ Mali gis nañ Burkina ainsi de suite pour wane ni rek suñu dëkk yi on est lié on est lié par l'histoire on est lié par le sang donc il est temps que ñun ñëpp ñu lëngaloo jàppale Oumar Sissoko Embaló pour mu mën a jàmmarloo ak narcotrafiquant yi waaw ba pare ñu jàppale dëkk boobu tamit mu mën a tegu ci processus démocratique boobu jaar ñu lay jaajëfal bu baax a baax Cheikh Sadibou Ndiaye ngay spécialiste en géopolitique. maa ngi lay